mu ngoog euh, su ko defee ñu dem seeti jooytu bi nga xamante ne nii ñu nekk ci marché Serekunda bi ñu koy joytu euh, ci salte bi nga xamante ne rek moom lañ ne moo nekk ci biir marché bi sonal leen lool ba looloo waral nee nañ xet gu bon euh, moom moo nekk ci marché bi loolu sax dafay waral ñenn ci clients yi dañ dee daw marché bi li ko waral mooy salte boobu nga xamante ne rek moom moo juru xet bu bon boobu xibaar boobu mbay koor moo demoon ci marché bi lijjanti ko daado caam lañ siy teewlu dellu siwaat ñoom ñi yëngatu ci wàllum njënd meeg njaay mi foofa ca Serekunda daal ñu rek wone sañuy naqat ci li nga xamante nag mooy melokaan bi ne foofa na nag wax ne ne daal su tawee foofu daf dee faral di tilim te itamit nag lépp loo xam ne rek méngoog nag setal foofu dafa niiw lool loolu moo tax nag ñoom ci jamono juntool yi ñi ngi sàkku ndimbal wa itam nag di daal di ñaax ñi nga xamante nag ñoo am doole bi su ko defee rek ñu jàppaleen leen si rawatina nag Kanifing Municipal Council ak ñi ma nga xam ne ñooy manager yi foofa ca lii di Serekunda marché booba waaye tamit nag wax ne ne lépp loo xam ne rek ñoom ñu ngi ko war a def ñoom ñu ngi koy def waaye itam nag ñoom seen client si seen i bopp dañ faral di daw du ñuy egg ci fi nga xamante nag leen war a egg su ko defee jaay ak jënd daal di dox seen i diggante ñi daal di war a mun a am li nga xamante nag moo leen fa yóbbu moom di Ibrahima Ndaw nag nekk foofu di yëngatu ci wàllum jënd meeg jaay ma ca marché Serekunda itam wax na ne daal ci jamono juñ toll ni am na li nga xamante nag jot nañ ko woon a def ndaxte nag mu ne moom ak ñeneen daal di woon ne ndam waxtaan ak market manager bi ci boppam su ko defee mu daal di leen jàppale ci ay matuwaay yi nga xamante nag dina ko war a mën a tëddal di setal lii di marché bi waaye nag dem ne nag ba lii di ab troc sax waxoon ne ni dina faral di ñëw di jël lii di mbalit bi bés bu set waaye nag ñoom gisuñ benn yokkute bi nga xamante nag am na fa saa yoo dikkee da nga fekk mbalit day am ay sax dem nañ fii ci euh, manager bi Baye Modou Ndiaye mais jour bi ñu fi demee noonu def nañ délégation ñu ñuy toog fii ñëpp dem foofu ñu ko fa mais wax dëgg yàlla ñañ fa fekk accueillir nañ ñu wax ak ñun nice ñu carrément may ñu may leen ñu fi ak one week danañ ci wax ak ñi ñu war a waxal yëpp pour man koo dindi waaye ba léegi gis nga ko ni amul saafara mbalit bi soo dikkee suba teel nii fii doo fi mën a ginaar bu dee muus bu dee ku ko am sa kër fii ngay ñëw sànni ko dëgg yàlla daf ñu dee di stop mais ñu ci dara Lamine Seck moom it mu ngi jëngatu ci wàllum jënd ak jaay mobile bi foofa ca marché Serekunda mu ne daal ñoom li leen gën a naqadi rek mooy eh, buñ demee sax ba war a am ay lii di kiliyaan lii di melokaani marché bi dafay faral di dàq li nga xamante ne nag mooy client yooya. difficulté yi ñëw waxuma jaay sax de gën a am mooy seeni bagage day mujj di yàqu sax fu nga xam ne ne fa la mooy loolu. daal bu fekkoon da ngeen gis consommateur yi ngeen di jëflante xam ne nii. difficulté dana xaw am seen diggante yow Cosmo yi waaye Cosmo yi li gën a bari balaa ñuy yegg si place bi ah, ñëw tey waaye moto bi moto nii ak nii ndox bi taw bi dafa bari nii am yaa ngi dégg yooyu tamit xam nga du nekk yoo xam ne day sawarloo jaaykat bi bu mu am moto yi xam ne nii daal dinañ indi ci Cosmo yi di nice ba nga xam ne nii léeg-léeg nga am good customer yoo xam dañuy sacrifice seen bopp sax pour dugg si taw bi yéene ni ñëw waaye xam nga leen tamit jaru ko daal nga feebar nga si dee a bari daal tamit sànni naay kàddu di wax ne daal li nga xamante nag moom melokaani marché bi tilim na lool te loolu doon na loo xam ne nekkul di leen indil ab yokkute si seen wàllum jënd mi jaay mi ndaxte ñoom den bàyyi seen kër ñëw foofu su ko defee ñu daal di war a mën a dimbale seeni njoboot njaboot samake tan ko koleya ku jamaale jijang ah, because min kam ta sukurolo sukurooning samaba keeri nga xam batan di baakele manager yi si sañi bopp ci marché bi maanaam ñuy séentu wàllum tëdd ñu doomu aadama yi ci marché buuma moom di njaay daal dina itamit nag wax ne ñoom ñi ngi def seen i kéemtalaay kàttan su ko defee tëdd ñu doomu aadama yi foofa ci marché bi daal di gën a war a mën a yokk ak tam mën na war a set ni mu wala eh, ci jamono juntoon yi waaye nag vendeur si seen i bopp maanaam ñiy jaay foofu wax ne ne ñu ngi jooy bu baax eh, ci jafe yi nga xamante nag ñu ngi koy jànkuwante rawatina nag ci taw bi leen